ci mission bi nga xamante ne moom la ko war a jox fii ci kaw suuf mi koy leeral bu baax ci suratu nisaa yi naan yaay xam su takku rabbakum laaku yaay xam naa takk ittaqu rabbakum laaku xalaqakum moo ne bi mu bindee aadama ba noppi daf cee toftal suñu maam Hawa muy soxnaam ñu ànd ñoom ñaar am ak njaboot ba njaboot bi jur tey lii àdduna bi kon jigéen dafa yàgg ànd ci mission bi nga xamante ne moom la suñu borom jox nit ci kaw suuf mu jàppale suñu maam aadama ci mission boobu ba ñu fondé une famille bañ tasaaroo si àdduna bi si fii tey jigéen di ku suñu borom def cër jox cër maa ngi lay wax léegi ne la saar boobu jigéen la ko suñu borom tuddee suñu borom. di joxe ci alquranul karim ay jigéen yoo xamante ne yàgg nañoo am solo jigéen suñ borom da koo fonk ba daf ci joxe ay exemple yu baree baree bari ci alquranul karim wante amoon na ay période yoo xamante ne noonu suñ borom fonkee jigéen civilisation yoo xamante ne ñoom dañoo doyaloon jigéen jël jigéen gannaawal ko jël jigéen def ko daanaka mu mel ni objet jël jigéen joxuñu ko benn cër jël jigéen daanaka amoon na civilisation yoo xam ne comme civilisation arabe yi bu ñu masaana am sax doom bu jigéen am na dañ daan egg ba ci dañ koy suul ndax duñ ci bëgg dara wala bu seen borom kër yi faatoo dañu leen di jël ni ñuy dondoo matériel bi di dondoo noonu bien yi ñu leen di dondoo noonu wala bu seen borom kër gaañoo ñu boole leen ak ñoom suul te loolu di perdurer di perdurer ba l'islam nag ñëw delloo waat joxaat ko cëram bi nga xamante ne moom la ko moom la yeyoo joxaat ko cër bi nga xamante mooy cër bi mu war a am l'islam daal koy joxaat jigéen jigéen na yàgg jouer rôle boobu bokk na ci bokk na ci ay jigéen yu am solo yu ñu sunu suñu borom di di jox ko comme exemple ku mel ni suñu maam su ku mel ni Mariama Mariama bi nga xam ne moom mooy yaayu Isaa ibnu Maryam muy wax ak sellam di wax ak mbaaxam kon jigéen dafa am solo ba nga xamante ne yàlla di ko tudd ci alxuraan suñu euh, soxna Maryama moomu am na saar boo xam ne moom la ko yàlla jagleel ci alxuraanul karim am ñu ko jiitu woon ci civilisation égyptienne ay jigéen yu baax yoo xamante ne suñu borom mi ngi leen di site comme soxna Asiya mi nga xamante ne moo nekkoon soxna Firawna buñ demee ba ci noonu bi lislaam ñëwee. jigéen dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàppale Seydina Muhammad ci taxawal mission bu sell bi ko suñ borom joxoon ku ci mel ni soxna Khadija soxna Khadija mel nañ ni moom mooy jigéen ji njëkk a gëm gëm gëm yàlla suñu borom ni mu ko bëggee ci tawxiid gu mag jigéen la yàlla dogal mu njëkk koo def muy Seyda Khadija ndax bi yonent bi jógee ci xuntuma am ay jafe-jafe tiit naan sàng leen ma moom moo ko dalal ne ko yow yàlla du la toroxal mukk ndax ku baax nga bis boobu moo ko gindi tegaat ko ci yoon daal di dem seetlu ji ci ku mag ba kooku ne ko kii day njortu naa ne mooy yonent bu sell bi nga xamante ne moom lañu ñu woon ci téere yu ko jiitu woon moom moo njëkk a gëm moom Sayda Hadija daal di taxaw taxawaay bu rafet ci wetu borom këram Seydina Muhammad taxawu ko ci bépp femme taxawu ko ci protection ci sécurité am taxawu ko économiquement taxawu ko ci fànn yépp ba nga xamante ne feeg li mu doon dund yépp yan saa salaam musta jaaxle dara kon jigéen yàgg naa jouer rôle jigéen yàgg naa nekk model boo xamante ne jigéen l'islam yàgg na koo jox cër biñ noppee ci Seydina Muhammad biñ noppee Soxna Khadija l'islam amaat na yeneen jigéen yoo xam ne yu ay royukaay lañ woon ku mel ni Soxna Aïcha soxna Aïcha nekkoon soxna ci naa Muhammad soxna Aïcha moomu yoon saa salaam na wax naan seen génn wàllu diine jële mi ci jongama ju tuuti jooju muy say Seydatuna Aïcha ndax moom it xam-xam ñor ko ñoroon nekk ci ginnaaw Seydina Muhammad di solo addis yi di mokkal alxuraan di jàngale jàppale ko ci mission bi nga xamante ne moom ak waa kër Seydina Muhammad yépp ñoom ñu amoon cër lañ ci société ñu doon dund buñ dee dox di dox di dox ba ba loolu wees itam ak tam maa ngi sulu ne tam jigéen moo njëkk a joxe bakkanam ci yoonu lislaam muy sunu yaay Sumayya jigéen moo njëkk a wane ak doggoom moo njëkk a wane ak bañam biñ ko nee weddil waxal leneen loo xamante ne méngoowut ak sa tawxiit gi dafa bañ ba jaral ko ñu jël bakkanam waaye jugul benn yoon raful benn yoon ci loolu nga xamante ne moo nekkoon tawxiitam moo nekkoon ngëmam li mu waroon ci diggante ak boroomam kon jigéen yàgg naa jouer rôle bu am solo ci yoonu lislaam buñ dee dem di dem di dem di dem ba egsi ci suñu société africaine yi itam bokk na ci ñu jox cër jigéen lañ société africaine ñu yàgg jox cër jigéen lañ jigéen musul am musuñu koo desal ginnaaw bañ nañ ko les sociétés africaines ay sociétés matrilinéaires lañ ci wàllu ndey ci wàllu xeet lañ daan doone buur ci lañ daan faloo waaye bi l'islam ñëwee bi nga xamante ne suñu kilifa bu baax gu sell gi di Charles Bamba ñëw na ba sos yoonam bi dafa gën a bi l'islam jox jigéen moom la jox jigéen bokk na ci bim laataa jiitu jigéen ju ràññeeku ci askanu Maam Maaram muy soxna Asta wàllu Mbàkke nga xamante ne lépp taxawaay boo xamante ne jigéenu julli doon na ko taxawee rek doon na taxawee lu mel noona nekkoon ab yarkat nekkoon ab professeur professeur boo xamante ne dafa nekkoon sëriñ daal di jàngale alxuraan mais professeur di jàngale tam xam-xam kon jigéen jooju moom moo meññi soxna jaara buso soxna bu buso moom rek dafa doy ab émission ndax taxawaayam bu rafet ndax matale gu matale cërub jigéenu lislaam ba yàlla baaxee ko fayee ko sang bu teel bi nga xamante ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba bi ñu biñ noppee ci loolu Serigne Touba njabootam bu jigéen gi doon ñoom tamit ay modèlu jigéen yoo xamante ne ay modèle yu mat sëkk lañ ku ci mel ne Soxna Faatija ndax ku mas a mokkal alxuraan ci njabootam bu jigéen gi naan la demal ci Soxna Faatija mu jàngal la ak taalibe moom it ku taxawee woon rëlam bu rafet boobu la ci wetu waajuram bu sell wala tamit nag jigéen ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ronu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim bokk na ci jigéen ju sell ji nga xamante ne moom lañ bëgg a waxtaane tey jii di soxna Marema Jaxate mu taxawee fa woon taxawaay bu rafet rafet ba yàlla fayee ko jàmbaari lislaam yu sell yii di Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne Soye bu Mbacke mi nga xamante ne moom moom la ñuy bëgg moo waral bis bii tey kon soxna Marem jigéen musul des ginnaaw ci wàllu lislaam jigéen musul des ginnaaw ci yoonu murit jigéen lépp li nga xam ne da koo war da koo joué ba mat sëkk sëkk sëkk ci lislaam ak ci yoonu murit bi kon boog li tax tey rek ñuy gën a accentuer suñu wax mooy di wan xale yi ne ay royukaay moom ñàkkuñu ko ñun suñu civilisation daf ñoo jox cër keneen waruñoo gondi ñi ñu war roy mooy ñii ndax suñ borom moo njëkk ne roy leen ci ñii di leen de en exemple du tudd seen tur ci alxuraanul karim ba ci jamono yi ñu toll nii tam ay royukaay nekk fii li may wax ay exemple vivant dafa am solo ku mel ni soxna maam Marème Mbacke mee di ab exemple vivant boo xamante ne kuy wër royukaay moom mat na royukaay ndax bi mu juddoo fi mu war a juddoo ba noppi ba jàng li mu war a jàng foofee soxna yu baax yi ñu cité léegi tegoon seen tànk moom da caa teg tànkam ba ñépp teg ci suñu bët tey gone yi nga gis ci suñu ginnaaw ñu sol yeneen yu verte yi moo leen mu am ñu ci mokkal alxuraan gis nga soxna Nafi Mbàkke mi doon tali léegi alxuraan ju neex ji ci daaraam la nekkoon kon ñu ngi koy gën a ndokkeel di wan xale yi ñuy déglu ak jigéen ñi ñuy déglu ngeen xam ne jigéen musu la des gannaaw loolee jigéen ñu baax ña amoon bañ leen di tudd képp ku teg sa tànkit incha allahu la leen suñ borom faye woon dina la ko faye kon soxna Ndeye ba Euh, mu mel ne sa laaj bi am na solo lool te dina neex ci man lool ma dugg ci waxtaan woowu ndax sunu boroom tabaaraka wa taala comme ni ko soxna maam Anta waxe jigéen daf ko masa jël ca tàmbali ba ba fi ñuy toll ba illaa yomi diini jigéen di am rol di am wàccuwaay bu mat sëkk nag bu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee day tànn lu jigéen daf ne nañ tànn jigéen ci ñeent ñeent jikko su ko defee buñ tànnee jigéen ci ñeent yooyu bu la ci neex tànn waaye nag mu daal di insisté ci benn jikko mu ne nañ leen tànn jigéen ci taaram nañ tànn jigéen ci askanam nañ tànn jigéen ci alalam waaye nañ tànn jigéen ci diineem daa dina nañ tànn jigéen ci diineem ndax nga mën a bénéfice wu ci sa njaboot bu ëllëgee ndax jigéen ji nga xamante ne danga ko tànn ci diine bu ëllëgee njaboot ga cay meññee ga cay génne day doon njabootug diine day dundal diine comme ni ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax woon ne na ngeen di dencante te ngeen di ndax ñuy jur buñ juree yokk se xeetu Seydina Mohamed ndax daf koy pokkari woo bu ëllëgee yomal xiyaam ci noonu ñu am comme ni ko soxna si waxee léegi ay référence yoo xamante ne ñun suñu dara duñ ko jëggaani fenn ndax lépp a ngi ci suñu biir ñu àndal ñu àndaaleeg moom ñu judd ci taalube ñu yar ñu ci taalube ñu war a dund ci taalube ba tax na jigéenu jullit bi rawatina jigéenu murit bi day jël ab bindam rek daal di koy dugal ci mbind mi nga xamante ne moom la seexul xadim di jàngale fu mu toll seexul xadim bi muy dénk suñu ndey soxna Penda Buyo ay baat yu am solo ay dénkaan yu am maanaa yoo xamante ne illaa yow mi diini benn bu ci nekk rek mën na conférence bu ko defee buñ commencé ci bi mu ko njëkk a wax rek alayki bi sabri wa taqwa rabbiki a sabru boobu rek jigéen ci boppam il faut mu muñ ndax Serigne Touba moo ko dénkoon soxna Penda te kon muñ ci ngay mën a rafetale sag jaamu yàlla waaye ci muñ ngay mën a rafetale sëy bi nga xamante ne moom nga war a sëy ndax bu ëllëgee nga am ci njaboot gu barkeel te muñ ci boppam dafa nekk loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan wax ne asabru inda saddamatul ulaa kon euh, muñ baaxoowul nekk lu neex loo xamante ne rek da koy mos mu neex ñu naan la muñal muñ day naqari ngay muñ te képp koo xamante ne manta muñ du mën a muñ jaamu yàlla sëy te sëy jaamu yàlla la su ko defee nag il faut ñu jàpp ci ndénkaaneel Serigne Touba loolu nga xamante ne moom la wax daal di ne nañ muñ te ragal yàlla ndax kenn mënta sëy sëy boo xamante ne day am résultat bu baax ëllëg te ragaloo yàlla te ragal yàlla nag ci xol lay nekk ndax bu fekkente ne dafa nëbbu nga delluwaat ne allahu laa ilaha illa wa xayul xayum laa taaxuduhu sinnatun wala nawmun la suñu borom dara du ko réer ndax du nelaw ndax du gëmmentu te lépp lu waay def mi ngi jàkkaarloog yow kon looy def nga sédd ci ne sa borom mi ngi la mi ngi ànd ak yow waaye nag da ngay gëm yàlla ne sëy bii may sëy dama cee war a dama cee war a jaamu yàlla ndax sëy jaamu yàlla la ndax bu fekkente ne sunu borom moo ñu dig loolu neexale ñu ko ndax buñ toppee borom kër rek am àjjana yomb na lool de waaye am na nu muy demee dina jafe lool. su ko defee nag jigéen ji ci boppam war naa mën a am noo xamante ne nag noonu la war a toppee borom këram nag dëgg dëgg topp topp borom këram ndax jigéen bu fekkente ne dafa topp dafay jàng ba ne ar di jaamu yàlla fu mu toll di julli di woor. di lépp lu suñu borom santaane mu def ko te nekkul di topp borom këram bu yowmal xiyaamee loolu mu doon def lépp dana du ko jariñ dara pënd lay doon buy bu tim ko di jolli rek ndax laxraaf lay dekkee bu ëllëgee yowmal xiyaam te laxraaf mu ngi ci diggante àjjana ak sawara kër la goo xamante ne bu ñu la bu bu bu fekkente ne suñu borom nattoo na nit ki ba mu dem ca bu ngelawal àjjana ubbee mu kontaante lool féex ca bànneexu ca waaye bu ngelawal safara uppee mu daal di cay xoyomu lool ba metti ci moom loolu te loolu yal nañ ci yàlla musal kon loolu ki muy dal mooy ki nga xam ne day topp yàlla te du topp borom këram ki nga xamante ne day topp ndigalal borom këram nag kooku dafay am day am eh, loolu ñu naan sens interdi ci sawara du am du dem mukk sawara ndax ku sa borom kër gërëm nga dem àjjana loolu nag li la koy may mooy nangoo topp ci li nga xamante ne moom la la sa borom di sa borom digal te sa borom kër di la ko digal moo tax rek man ñaare damay wax ne li may wax dama koy tënk ci ay baati wolof rek boo tax bu ko defee am jigéen ñoo xamante ne bëgg nañoo jaamu yàlla bëgg nañoo sëy sëy bu neex waaye xamaguñu fa ñuy jaar moo tax ma ne woon saa yoo bëggee bëggal sa sëriñ bind ak sangoog suul du ko faj jàppal sa ginaar gu weex nga njoñ booleeg nenam ya jox ko ko tànqal sa ndox sukk ci wetam booleeg diree te naan ko am dàqal fulla te ñàkk jom te yootu baat ba jox ko ko saayoo xëyee jullil te ñaan te génn nag ci luy caaxaan te laxasaayu saa yu dib sëyaan luy xeetu dis nga bàyyi ko saayoo yoo xëyee dijal ko laax booleeg di ree ba xol ba neex su ngoon jotee nga ñëw ne faax di xeeñ lu neex jéggulu ko waaye ku mer cib jabar mu di la nax naan doo jabar laaj lay junni ak sagar te lum la wax nga jàpp ko soo fa jógee dellu sa kër di tongonte kii sa jëkkër dana la dóor te du ko nar wuti keneen nga bàyyi ko li may digal jigéen ñi nag ñu jaamu yàlla fonk mag te wut ci kër ngërëm lu mag ci seen sëriñ moo gënu nag ñu bokk tokki seeni kër saxoo di sàmm lii ñu yor te luñ ñu jox ñu koy defar ku sax ci lii de yaa di gor maay doomi diw taxul di waat ne maa di diw dangay royaat la diw defoon ca ngay awaat ba ku la gis ne moo ñëwaat ndax àddunaa ngi nii di jeex luñ fi amoon léegi mu jeex moo lu fi jar xëccoo ko xeex caabi ngënee jar a jeex ku fooguwul duniyaa bi nag jàppe ko kër tabax ko nag saxal fi rek bànneex bi nag dalay alak tey ak ëllëg ku lànk weddi li ma wax defe na day dund mu sax danañ ko suul ba mu amee sax ñu dekkalaat mu jóg di wax te yàlla sax buy dekkalaat baatub ku ba lay jëlaat lam binde woon moom lay waxaat ñu daldi jóg di taxawaat mu daldi génne téere ya suñ cër yi ñoo di seere ya mu daldi di woo malaaka ya ku texe dem àjjana ya urul ay ni génn teew seen kanam ya mel ne meew góor gu nekk dal na siiw ñu ne la am ba waaw kon ku bëgg a dekk ci ku bëgg a bokk ci ñooñu da ngay nangoo toppee topp sa topp sa borom kër ndax moo lay may ak teraanga ak àddina ak àllaaxira ñoo ko déggandoo génération bi nga xam ne dañoo jàpp ne borom kër morom la wala nawle la waaye sang la ndax koo xamante ne wax nañu ne bu sujjóot daganoon dana wax soxna mu sujjóotal borom këram te kenn ku ne xam na ne sujjóot la nga gën a foog ngay teg ci suuf te gën a jege borom bi muy sa kanam kon war nañoo xam ne borom kër du moroom borom kër du du du du waaye sang la ndax kon wax nañu lex bi nga xam ne jigéen moom la gën a fonk bu bu ko jëloon di ko fompe tànki borom këram tax matale ay sartam du tax mu matale bégal ko waaye nag ñu moytu nag topp ndigalu borom kër ba jàpp ni sëriñ bi leeralu ndax danaa dégg benn mag mu am xorom mu naan musa gërëm na madam ñu dem sawara <laughs> la ko indi mooy sëriñ bi ba mu waxee da ko leeral wala tarumi tantalaay bi laa tant zaw jiki ndax xiisilu la la ca teg kon sama borom kër ma jëndal mees wala moo ma ne ma diw yooyu bokkul ci lislaam jigéen borom kër bu ragal yàlla ndax ñetti ndigal yi ñoo am ndigal sunu borom ndigalu nitu yàlla ak ndigalu naa feq bi yàlla la muy digal mooy gën ceew nitu yàlla du wees la yàlla digal waaye naa feq na la ko arrangé la lay digal kon nañu xam suñu diina teg suñu tànk foofu alumu madrasa dem ci soxna Nafisa muy nu jigéen ak xam-xam ndax bokk na ci taxawaayam ci diine ñi ngi nuyu bu baax a baax mbokk yu sell yi nga xam ne ni ñoo teew ci jataay bi tey tàmbalee suñu nuyoo ak suñu ziyaar xalif général des mourides Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu guddal aw fanam wéral ay cëram ba li nga xam ne nii moom la naan ci yoonu Serigne Touba mu àggale ko ci ni ko bëggee àggalee ko ci sagoom te lépp njariñ la rawatina ci wàllu xam-xam ndax ko xam Serigne Mountakha xam taxawaayam ci xam-xam ak bëgg gi mu bëgg xam-xam ak waa xam-xam loolu moom duñ ci sori ndax dane gàññi te lu ne gàññi kenn du ko jeex waaye itam di nuyu suñu yaay soxna maam Marème Mbacke bu di ko ndokkeel bu baax a baax ci bisu waajuram mu sell wii nga xam ne ni moom lañu dëgmal di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal taxawaayam te wéral ay cëram moom itam ba li mu nam ma liggéeyal yàlla liggéeyal ko diine ji ci alquran ak ci xam-xam yàlla may ko mu àggale ko ci sagoom ginnaaw loolu ngir bañ a guddal dañuy dugg ci tomb bi nga xam ne nii moom lañu ñu sàkk woon ci ñun ñu fàttalante ci te mooy jigéen ak importance su xam-xam ci moom mbokk yi xam-xam dafa nekk loo xam ne nii lu am am solo la nekk loo xam ne ni lu mënta ñàkk la ci dund gi ndax yàlla subhanahu wa taala ba mu bindee aadama bind suñu yaay xawa te mooy bidaayatu suratu nisaa yaa ayuha taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxidatin wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa mu ne yenn nit ñi ragal leen yàlla mi nga xam ne nii moo leen bind ci benn bakkan ginnaaw te mooy aadama ginnaaw booba mu bind ca moom soxna sax te mooy suñu yaay xawaa mu ne ginnaaw loolu dañoo bind ci ñoom ñaar ay góor ñu bari ak i jigéen ginnaaw ba mu bindee ay góor ak i jigéen bàyyiwu leen noonu rek waaye dafa kenn ku nekk dafa jël la nga xam ne ni moom la méngool mu teg ko ci ak ndoddam gàll ko ko dafa am loo xam ne nii moom la gàll góor am loo xam ne nii moom la gàll jigéen bokk na ci li nga xam ne nii moom la gàll jigéen mooy yar njaboot gi li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa ma góor bu demee génn wuti di sonn ci kër gi soxna si moom moo koy dalal nekk ci moom ab dëkkuwaay yar googu mu nga xam ne nii moom la war a yar njaboot gi toppatoo borom këram dafa am ay charte yu baree bari yoo xam ne nii moo koy dimbali mu matal loola te bokk na ca charte yooyu la ca ëpp solo bu dee nekkul ne moom moo ca ëpp solo waaye bokk na ca la ca ëpp solo mooy xam-xam kon xam-xam daal nekk na lu loo xam ne lu am importance la bokk na ci mbir yi nga xam ne nii mooy wane ne xam-xam lu am importance la mooy boroom xam-xam du mës a tolloo ki nga xam ne nii amul xam-xam qul hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun innama yatadakkaru ulul albaab mu ne ko yàlla naan suñu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ne ndax ñi nga xam ne nii dañoo xam dinañ tolloo ak ñi nga xam ne nii xamuñu déedéet duñu tolloo yàlla di waxaat ci téere bu sell bi naan yarfa illaahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajaat yàlla daal day yëkkati ñi nga xam ne ni dañ koo gëm waaye day yëkkati ñi nga xam ne nii dañoo am xam-xam dal yëkkati seeni daraja waykat ba day wax ne taallam fa laysa almaru yuladu aaliman wa laysa axu ilmin kaman huwa jaahilu wa inna sagira alqawmi waa inna kabiral qawmi laa ilma indahu saxirun ida ltafat alayhi lmaxaasiru jàngal ndax doomu aadama kat kenn du ko juddu kenn ko jur mu nekk boroom xam-xam faw ne ki nga xam ne nii dafa jàng ba am tamit du mës a ki nga xam ne nii dafa réer ne xeet bi bu ñu toogee ka ca mag ca ay at bu fekkee moom dafa nekk koo xam ne nii amul xam-xam kooku de dafa mel ne moo fa gën a tuuti ndax ñàkk xam-xam gum ñàkk xam-xam bu ñu wax nag importance su xam-xam amul góor amul jigéen waaye ñépp a ci ndax kat euh, aaya bi nga xam ne nii suñu rakk ji léegi ubbee na ko dafa leer yàlla subhaanahu wa taala mësta tàqale góor ak jigéen ci wàllu jaamu yàlla lu dul yenn kaa yi nga xam ne nii dafa yittee jigéen te amul ci góor masalan moo tax mu ne innal muslimina wal muslimaat wal muminina wal muminaat ba aaya ba jeex fu mu tuddee jullit yu góor yi tudd fa jullit yu jigéen yi waaye man damay wax ne xam-xam ci ñépp la am solo waaye rawatina ci jigéen ndax jigéen moom mooy yar njaboot gi jigéen moom mooy madrasa mooy école jigéen moom mooy liggéey góor ñu baax ñi kon jigéen googu bu fekkee dafa nekk koo xam ne ni jàngul koo xam ne ni xamul lu rafet xamul lu ñaaw xamul lu araam xamul lu dagan kooku naka lay yaree njaboot gi wala boog bu leen yaree dina leen teg ci yoon boo xam ne nii bokkut ak yoon bi nga xam ne nii moom la ko yàlla subhaanahu wa taala sant woykat bi dane al ummu madrasatun ida aadattaha aadatta chaaban tayiba al araaqi mu ne jigéen yaay itam mooy jigéen dafa nekk comme école école boo xam ne ni boo ko waajalee na ko war a waajalee dana jur ay meññent yu a am solo te yaakaar naa la jiitu te nañuy waajalee jigéen mooy jàngal ko mu xam bu ñu xoolee Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa nekkoon ku fonk lool jàngal njabootum bu jigéen bi mosu cee tàqale góor ak jigéen dañuy wax ne dafa am benn waay bu mës a ñëw ci sëñ bi sëñ bi daal koy laaj ne ko ana sa doom ja fu mu toll léegi mu ne ko bu doon góor de matadal jàng sëñ bi keroog dafa mer ne ko bu dee jigéen nag nga xam ne booba dafa mel ne waa ji dafa jàppoon ne daal jàng sàkku xam-xam góor rek la war waaye bu dee jigéen moom am njàngam amul solo comme ni ko ñu bari daan waxee sëñ Touba nag xamal ko ne ko déedéet jigéen nag moo war a gën a mën a jàng te loolu da ko doon digle di ko doxe ndax ku xool njabootu sëriñ tuubaa gi ñu jigéen ñi Euh, dalee ko ci waajuram bu jigéen di soxna jaaratullaahi Buso nga xam ne ni dundam nga la muy gàtt gàtt ci zaahir mokkaloon alquran xam-xam ba nam ca géejoo woon ba nga xam ne ni yàlla dogal mu indi ci àdduna ku mel ne Cheikhul Khadim radiallahu anhu ñu xool njabootam bu jigéen ñépp soxna Maymunatul Kubra soxna Fatou Dia ba wàcc ba ki nga xam ne ni moo waral jotaay bi tey di Serigne Chouaïb radiallahu anhu waajuram bu jugoon jigéen bi soxna Mariama Jaxate mi nga xam ne ni soxna si waxtaan na ci moom léegi loo xam ne jërul ñu ciy dugg doy na tamit exemple mooy Serigne Touba bu daan jël euh, maanaam soxnaan yu daan jël yépp dafa daan tànn ñi nga xam ne nii ñoo bàyyikoo ci yi xam-xam mën nañ cee joxe exemple rek soxna Faat Tuuti Jóob mi nga xam ne nii mooy waajuru Serigne Mourtada mi nga xam ne nii këram lañ nekk tey mi ngi ko jëlee woon kokki te li taxoon mu jëlee ko fa ku nekk xam na kooki ni mu nekkee dëkkub alquran nekk dëkkub xam-xam mu jële ko fa meññent mu euh, mu sell moomu tax mu am ku mel ne sëriñ Mouhamadul Mourtada Mbacke mi nga xam ne nii kenn umpulewul taxawaayam ci xam-xam nga xam ne nii azhar yi nga xam na nii moom la sos ci Sénégal gépp ak ci bitim réew lépp ci juddoo ci kërum xam-xam moom moo waral lu ni mel waaye di jël suñum nuyoo itam di ko def ci boroom kër gi ñu toog si ëttam di Cheikh Mamour Mbacke moom Cheikh Mouhamadal Mourtada di ko nuyu moo njaboot gi mbokkal Cheikh Mouhamadal Mourtada gépp waaye di jël suñum nuyoo ak sunub siyaare ak sunuy ñaan di ko nuyu Cheikh Ahmadou Mbacke ak njabootu sëriñ Soxna bu Mbàkke gépp góor ak jigéen mag ak ndaw ak ñi ne ci ronam ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ñaanal jàmm ak tawféex di nuyu itam sunu kilifa ku tedd gi ci sunu ginnaaw di soxna maam Maram Mbàkke di ko beral xaasatan nuyu boppam moom itam eh, di ko ñaanal fanu gudd ak wér eh, kon ñu sof suñuy wax rek ci fi nga xamante ne fi la mbokk yu tedd yi daaneele di lu lool macha allah kàddu yi nga xamante ne itam jàll na fi mu mel ne eh, ñu ngi sant bu baax soxna Ndey Rubba di ko nuyu di ko delloo cëram waaye soxna Mariama Jaxate macha allah li nga fi indi am na solo lool di sant itam soxna maam Anta Mbàkke di ko jox cëram bi ko sun borom jox ak wàccuwaayam waaye di sant suñu doom jee di Nafisatu Buso waaye di sant sunu xarit sunu lépp di soxna Jóob macha allah kàddu bi fi aw na solo di nuyu itam public bi nga xam ne ñoo fi daje ñëpp eh, di leen ndokkeel di leen ñaanal fanu gudd ak wér mu mel ne soxna ndeyru ba tomb bi nga nu jox nag daanaka dafay génnewaat ci tomb yi ngeen yiñ fi wax yëpp ndax yiñ fi wax yëpp balañ cee mën a jariñoo benn rek il faut ñu aw ci bii te mooy yar mu mel ne yar nag euh, farata ci góor faratale ci jigéen waaye kiñ ko gën a séentoo nag mooy jigéen ndax jigéen mooy yaay jigéen mooy maam jigéen mooy bàjjan jigéen mooy mag jigéen mooy rakk te jigéen mooy taqoo njaboot gi kon gën nañoo soxla wala ñu yaakaarloo ci jigéen ci ab yar te lislaam ci jëmmam it moom jigéen moo ko traceel yoon wi nga xam ne ci lay aw ba mën a nekk ab yarkat ndax jigéen ji mën a yar dëgg mooy ji ñu tànn waaye fuñ koy tànne ngir diine euh, kon kiñ tànn ngir diine mooy ki nga xamante ne moo mën a yar ci diine te jigéen ji am diine nag mooy jigéen joo xamante ne dañ koo waajal wàccaay wa nag waajal wu yàgg lay doon moo xam waajal ci ay waajur la njëkk soog a waajal ci diine ndax am na ku mas a ñëw am kum jox doomam mu ne ko dama bëgg nga yaral ma ko fekk doom ja xaw a toll ci mag mu ne ko wees na mu demaat ba am doom ju toll ci fer mu indil ko mu ne ko wees na mu dem ba am doom ju muy doog juddu mu indil ko mu ne ko wees na mu ne ko kon fan la ñuy yare mu ne ko xanaa ca fa ñuy sàkkoo ndey te loolu am na soxna su ko fi wax léegi alxuraan moo ñu njëkk a digal ne su ngeen di bëggee yar seen doom nangeen leen sàkkal ay ndey ya ñuy jaar ndax euh, jigéen kat mën naa am borom kër bu ne waaye borom kër moom sëñ te gis jigéen ju ne mu takk ko kon jigéen ja takk ngir bu fas yéene te am meññatum lislaam war naa nekk jigéen juñ waajal ti ni ko alxuraan diglee ndax tey boo demoon ci ab sën sën bi naat lool nga jël sa buuse wala sa gerte gu xóot ji fa mën naa bañ a sax wala bu saxeet eh, eh, kii ba ñax ma mën naa rafet waaye du am meññet ci biir am na fi ko ko fi wax léegi moom lan suñu borom bi wax naan al baladu tayyib yaxruju nabato bi isni rabbihi wala si xab sa nag laa yaxruju ila nakkidaa daa joojee nag mooy nga seet fu la neex nga jële fa soxna ngir te nga ne dangaa bëgg am jiw bu baax wala meññal mu rafet loolu mënut a nekk kon jigéen ji nga xam ne dañ koy waaj dafa jóg ngir yar jigéen juñ war a waajal la ba jikkoom rafet melokaanam rafet jigéen ji jigéen ji am diine nag jikkoom rafet faaw mu yeewu itam kon war na ci ab yarkatit lu mu am am diine waaye lu am am jikko ju rafet waaye lu am am xol bu rafet faaw itam mu yeewu ndax yeewu googu mu yeewu ci lay mën a xàmmee fii jamono tollu tey ndax ñun ñi nga xam ne ñooy jàng ñooy ñi nga xamante ne du ma wax sax suñu borom moo ñu nattoo jàngale ndax natt bu ñu koy wax day mel ne lu naqari la kon xëy na suñu borom nu sédde ñu nekk ay yarekat di ay jàngalekat moo xam euh, sëñ daara la moo xam soxna daara la moo xam yaay la moo xam bàjjan la moo xam maam la képp koo xam ne dangaa jóg ngir yar ak jubbanti rek euh, kooku danañ la dugal ci wàllu yar kon na kooku dafay am responsabilité bu mag ci war a jubbanti njaboot gi ngir ñu mën a am société bu tegee ci aw yoon kon faawu yarekat bi euh, euh, kon faawu yarekat bu ne euh, dana nekk kuñ tànn waaye dana doon itam kuñ waajal surtout nag ñu waajal ko ci diine ndax diine lislaam mooy diine ji nga xam ne képp kuñ ci waajal rek di nga am résultat bu rafet ndax ñun ñii nga xamante ne nag ñooy waajur yi nga xam ne ñoo war a sàmm njaboot gi dafa am lu bari lu nu wuutu ci sunu njaboot lu mel ne internet beeg télévision beeg mbooleem xeet yu ni mel noo wuutu ci sunu njaboot ba genn yeewu gi bu nekkul ci ñun rek yar gi nga xamante ne war na koo yar xale yi duñ ko man ndax yarekat yeewu da koo war lool ci àddina mooy tax mu mën a téye ak njabootam ba man leen sàmm ba kenn du leen mën a yàq waaye kenn du leen mën a nax ndax xale yi dañoo xereñ lool ci mbooleem lu jëm ci mbirum internet ak téléphone xale yi dañ cee xereñ kon yow mi nga xam ne yaa leen di yarit il faut nga fexe ba xereñ dañ ca xereñ nga man lañ ca man wala nga raw leen ca wala nga tolloo ca ak ñoom ndax dangay ngay ak sa doom léegi ci lal bi mu yorub téléphone am téléphone bi mën naa sone ba mu wuyu ko dend ak yow wax ba coupé li muy wax doo ko xam kon loolu lépp itam il faut nga am yeewu door a mën a yar xale bi door koo mën a teg ci yoon kon loolu mooy li nga xamante ne war na ci ab yarkat waaye bokk na ci itam jikko yi nga xamante ne nag il mu nekk ci nit ki mu soog a nekk ab yarekat bala ngaa jël décision buy yare da ngay leer ne jikko yi mi mi ngi ci yow nga soog a mën a nekk ci yarakat ndax buñ demee ci ahlu tasawuf indi nañ ay bunt yoo xam ne eh, yëpp ñu ngi koy wax di di ci lim jikko yi nga xamante ne ab yarekat noonu la war a mel soo demee ci fi ñuy wax baabun fil ihsaan da nga ko fa fekk bokk na ci jikko yi nga xamante ne ab yarekat war na koo am muy taqawallah muy ragal yàlla te mbokk yi ragal yàlla nag di am solo ndax ragal yàlla moo jiitu lépp ndax ragal yàlla mooy jikko ji nga xam ne su xasee placé ci xol rek leneen lu ñëw dafay mën a tege si kaw waaye xol bu amul ragal yàlla su amee xam-xam bu amee bi yar bu amee alal lu mu mën a am rek loola day wadd waaye ragal yàlla moom bu xasee placé leneen lu ñëw rek dafay daal di tege ci kaw bokk na ci jikko yi nga xam ne yarekat war na koo am it axlaaqul mardiya te mooy jikko yu ñu gërëm yi jikko yooyu ñu gërëm nag la ca jiitu mooy xol bu sell kon nit mën a yare il faut mu jikko yu eh, jikko yuñ gërëm yooyu yëpp te ba ca jiitu mooy xol bu sell ndax ci lay mën a yare eh, biir ah, ah, al axlaaqul marde yooyu yëpp amaat na yeneen jikko muy axlaaqul xasana te muy jikko yu rafet yi jikko yu rafet yooyu nag moom it lim nañ ci yoo ay melokaan yoo xam ne kiy yare war na koo yar nga xam ne dafay yare war naa nekk ko yaru moom ci jëmmam moo war a njëkk a yaru ndax olof Njaay dafa wax ne kiy digle jub kocc da koo war eh, kon yow miy yare dangaa war a jub ba nga xam ne ñi ngay yar dinañ def ci yow royukaay waaye danañ def ci yow exemple kaay wax nañu cheikhul xadim radiallahu anhu mas naa toog ba yàgg mu woo magi barsàq yi ne leen dem leen ngeen indil ma seetu ya ngeen am ca seeni néeg nee nañ mag ñi dem kenn ku nekk foo dencoon xottu seetu nga dajale ko dikk indil ko cheikhul xadim mu ne leen waxuma yii seetu xale yi ngeen di yor seeni néeg ñooñu laa wax ndax ñooñu ñooy seeni seetu ci yéen lañuy xool di roy ci ñoom kon yarekat bi war naa yaru ba noppi soog a mën a yare waaye bokk na ci jikko yarekat war naa yeewu war naa yiwe ndax yiwe itam ci lay mën a yare xale bi def ci moom jikkoy nit ku yiw waaye yarekat bi it war naa nekk koo xamante ne du gaaw a mer ndax kenn ku nekk xam na ne gis nañ bi ñu fi toogee léegi rek xale yi coow yi ñuy coow ñu leen di jubbanteek yooyu képp koo xam ne da ngaa xaar wala nga gaaw a mer wala nga gaara gaaw a gedd doo mën a nekk ab yarekat waaye bokk na ci jikko yerekat it war naa doon euh, wërta doon itam ku gaaw a yëg boppam ndax yëg sa bopp itam baaxul euh, kon bokk na ci itam koy yare kat war naa nekk ku dal surtout dal nag ndax dal moom mooy lépp ndax euh, xale yi moom am nañ tabixa boo xam ne suñ borooma leen mooñaa leen moom képp ku amul sago amoo dal rek doo leen mën a yar te dalit dafa am solo ndax dafay tax dara du la filaale di la yóbbaale ci loo xamante ne waru laa yóbbu dalit moo lay maye nga euh, moo xam xale bi ngay jàngal la moo xam waajur yi ñëw si ci daara ji di àkk si wala di xool si te kenn ku ne miin na daaray Tuubaa ñaare yow mi nga xam ne yaay jàngale waajur bi ngay gis ci daara ji ñaare du doon waajur woo xam ne dafay jënd kilo suukar di la ko yët wala muy waajur woo xam ne dafay xool fu doomam toll waaye ñaare saa bu waajur dikkee ci daara ji rek lim fi xool si mooy dallu doomam bu réer wala kat moo dóor sama doom kon kooku dal gi ngay dal moom ngay mën a am ba supporté waajur woowu ba mën a wax ak moom ci sab yar mën a wax moom ci sa xam-xam ak sa dal mu delluwaat te du mar euh, bokk na ci jikko yi euh, yarekat war a yorit am yëg-yëg yëg lu am solo la ndax itam xale boo ko yoree il faut nga am ci yëg am ci moom ak yëg bokk na ci jikko yi nga xamante ne yarekat war na koo euh, amit bari lool ab seetlu surtout nag bu la yàlla dogalee ngay yar ay xale yu jigéen ku awam seetlu nga war a doon ku war a ñaaw njortu ci ñoom nga waaye ku war a rafet njortu ci ñoom seetlu boobu mooy dem ba nga xamante ne lu xale yi bari bari bari xale bu ci xëy rek boo ne ko jàkk su boppam dee metti di nga ko xam te du la ko wax su biiram dee metti da ko xam te ko wax bu yeewuwaale bi xiif da nga ko xam te du la ko wax su fekkee dafa ci bind bi war a tari tey da koo xam te ko wax kon ab jàng ab yarekat war naa am ab seetlu bu baax bokk na ci itam jikko yi nga xamante ne ab yarekat war na koy am itam lu muy dugg lu ne maanaam am ak yeewu ba xàmmee lépp lu muy dugg ak lu muy génn ak su ci duggee la cay mujj waaye lii itam su ci génnee lay nekk rosintaaba it ab yarekat war na koo xam Cheikh Saalix Mbakke radiallahu anhu daana wax ne sunu borom bi tabaaraka wa taala day pas-pas lañ de lañ la ñuy àndeek moom waaye àddina ji nag am xel moo koy doxal kon xel ak dal ak yar mënta ñàkk bokk na ci jikko yu yore yoo xam ne yarekat war na koo yorit am fulla waaye yarekat it war naa am caractère ci boppam waaye nag xar kanam ba moom nay nay ndax xale bi itam su fekkee da nga koo yor di ko yar di ko wan kanam gu ñàng di ko gëdd dana am jafe-jafe yoo xam ne léeg-léeg su ko gaaree dina am tiitu jàkkaarloog yow wax la ko wala mu rus la koo wax wala mu ragal la ko wax kon nag na nga am caractère bu du la jéggi waaye na lewetal lebetal sa xar kanam ba lépp lu ne ci xale bi nga xam ko bokk na ci melo yi nga xamante ne yarkat war na koo amit réservé ci boppam ba nga xam ne xale bi du du ko mën a jàll fenn foo xamante ne bokkut ak fa mu ko war a jàll mbokk yi bokk na ci itam tomb yooyu nga xam ne yarekat war na koo am yarekat war naa doon ko am wegeel ndax soo wégul sa bopp sax kenn du la weg kon yow mi nga xam ne dangaa yor ak njaboot war nga am ak wegeel ci sa bopp eh, yarekat it war naa doon ku farlu ndax itam ay gone boo leen yoree bëgg di leen jàngal di leen yar di leen teg ci yoon itam il nga farlu te doo tayal yarekat it war naa doon surtout nag ku am ker sax te kersa itam bokk ci jikko yi gën a rafet ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na alxayaau laa yaati illaa bi xayri kersa day du dikk mukk doo ko def mukk lu aw yiw moo cay bàyyi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu waxaan ne wa li kulli diinin xulqun wa xulqul islaam alxayaa diine ju ne day am nga jikko waaye diine yi lislaam jikkoom mooy kersa yonent bi sallallahu alayhi wa nag ne képp koo xam ne féetéerlu nga nee nga doo am kersa def lu neex kon defal lu neex di nga dajeeg ëllëg lu la moo tax mu ne wa isaa lan tastahi fas nax ma chita su fekkee amoo kersa defal lu la neex kon yarekat it war naa doon ko tabe maanaam itam ay waajur itam bu ñu amee yaakaar ci yow ba yëkkati seeni doom jox la am na ci yu sew sewaan yoo xam ne jërut di egg seeni waajur jërut di toppanteek ñoom war ngaa nekk ko tabe koo xam ne léeg-léeg boo xamee ne xale bi tari da koo jafe wala nangam sax nga neexal ko ngir mu tari léeg-léeg nga may ko sa big léeg-léeg nga jëndal ko ab téere léeg-léeg nga romb nangam jëndal ko loo am bokk kook ñoom kon yarekat it war naa tabe ndax jikko jooju da war a def ci xale yi yarekat a muñ te muñ itam bokk ci jikko yi nga xamante ne jikko yu am solo la ndax inna allaha maa sabirin dellu waxaat ne fa sabru jamilun wallahu mustaanu kon sunu borom tagg na fu baree bare bari muñ te nit ki buy sàkku xam-xam sax su muñut du ko mën a am waaye yarekat bi itam balaa mën a am rusintaa ca la yar il faut mu muñal ka muy yar bokk na ci jikko yi nga xamante ne yarekat war na koo yorut war naa sell ci saahir ak ci baatin xale yi nga xam ne ñoom lay yarit mu def ci ñoom seet googu ndax les arab naan aqlun saalim fi jismu saalim yara xel mu mucc de mi ngi ci yara mu mucc kon xale bi war nga koo jàngal ak set laabu xol ak laabu biti yarekat it war naa nekk ko baax maanaa al birru te birru moom képp koo xam ne jikko la joo xam ne kum ne ci yow rek ku la gis dana la bëgg yarakat it war naa nekk koo xam ne saalixa lay doon ku yiwee la doon kon jikko yi mooy yi nga xam ne tënkoon nañ ko moo moo ana nekk ci yarakat mu mel na nag am na jikko yoo xam ne ab yarakat waru koo yor ab ray ab ñaan surtout nag muy moytu ndi ko loolu ñuy wax kasib te mooy wax lu dul noonu ab yarakat waxtu warta xiyaan muy war waaye ab yare yarekat wërta euh, alxiba muy jëw waaye surtout nag jikko bi gën a bon muy anamima te muy rambaaj yooyu yëpp jikko la yoo xam ne ab yare kat da koo war a moytu ndax yare kat moom euh, saa buy yar rek ki mi yar da koy roy surtout nag ñun ñi nga xam ne dañuy jàngale man te xale yi ñoo daq arrêté caméra bi ñu jàkkaar lool man ngaa téel xale bi mu sëgg di tari nga yor sa téléphone am ku lay woo au lieu xëy na jubluwa ci fen sax waaye lay la yaa ngi ci njàngam nga daan ne ko damaa nekk marché wala surtout nag ñaar yi nit ñi dàq laye muy maa nga jumaa ja wala maa nga marché occas ko defee xale bi nga téyel muy tari comme yaay ustaasam di ko jàngal rek wala yaay waajuram wax lool daf naan kon fen araamul ndax ba bàjjan wala ustaas ba mu may jàngal nee na mi ngi bërëb sàngam te bi sàngam kon yarekat war nay moytu wax lu du dëgg wala nga ne xale bi boo mokkalee saar sàngam wala boo wàccee alquran wala boo mokkalee wala boo bindee kaamil danaa la defal nangam dinaa la yóbbu dëkk sàngam mu ñëw nga bañ koo def kon war nga tey itam wax nga ko lu dul dëgg yow mi yaret waroo toog ci biir ñi ngay yar di jëw ndax ñooñu ba tey li ma waxoon rek dañuy defee ne jëw dagan na ndax comme borom xam-xam nga tey yaa ngi koy def rek dañuy defee ne aayul euh, kon daal yare kayit it war naa moytu mbooleem jikko yu ñaaw sëriñ Tuubaa nag radiyallahu anhu mas naa laaj mag ñi ca njaarim ne leen yaaman kafaani wa dabi ndax xam ngeen lan laa ci jublu mag ñi ne ko ah, mbàkke suñ ko mënee xam di jël mu ne leen mooy ñaaw jikko ak ñaawi teggin loolu moo tax euh, kon yare am solo gum am solo moo tax sunu sëriñ bu mag ba di sunu jàmbaar Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul radiallahu anhu kerew ba muy dénk soxna Penda Buya soxna Fat Jóob mais wax na ko léegi bokk na ca yem ko dénk dénk ko ab yar te ndax lépp lu ko digal rek jëf la joo xam ne bu ko defee jëfi ko yaru la maa nga naan ko wàjtani bil kasib wa riyaa wal ujb wa sumxata wal buxdaa yow soxna Penda na nga moytandiku wax lu dul noonu waaye nanga nga moytandiku njistal ci say jëf waaye na nga moytandiku itam yéem say jëf waaye na nga moytandiku dégg ak euh, dégtu ak noonu kon yooyu yëpp mbokk yi di ay jikko yoo xamante ne warul jàngalekat euh, ab jàngalekat wala ab yarakat di ko mel yar nag dafa nekk mbir moo xam ne mënut ta ñàkk ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sax bi ko sun borom di tagg taggewu ko ci judd bu rafet tëggewu ko ci xam-xam bu bari waaye tëggewu ko ci alal waaye tëggewu ko ci ab taar daf na ko wa innaka la ala xuluqin azim yow Seydina Muhammad yaa boole mboolem jikkoy rafet te jikkoy rafet la koy ommat mooy ab yar looloo tax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom it wëlbati ko tagg boppam daan ne adabani rabbi fa ahsana taadibi sun borom day moo ma yar waaye moo rafetal sama yar sunu jàmbar ja cheikhul xadim radiallahu anhu mas naa toog ba yàgg magi murid ànd am ñëw luñ ko doon sàkku ci moom mu wuute lool nag ak suñ jamonoy léegi ndax kilifa ak diine gu toll ne Serigne Touba nga xam ne lépp lu waay bëgg ci àddina ci njëriñ ak àllaaxira mi ci say loxo te lépp loo sàkku ci moom mën nga koo am nga ñëw bu doon ci suñ jamonoy léegi yi de bari na ñoo xam ne buñ toogee. Eh, sëriñ Touba wala doomi sëriñ Touba la ñuy sàkku ci moom mooy wutal ñu passeport diplomate boole no gouvernement bi mu wutal nu ko wala may nu ay terrain yuñ mën a def ay centre commercial waaye la may nu ay nangam waaye duñ xalaat seen mbirum diine waaye magi murid yooyee bañ àndandoo dañoo ñëw añ luñ sàkku ci sëriñ Touba ne ko danoo sàkku nga woyal ñu bindal ñu aw woy woo xam ne daf nu yar sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu daal leen di bindal téeréem bu tedd boobu di nax ju xadaa il xaaj te nax ju xadaa xaaj damay wax ne su ko nit ki jàngoon rek ñu firil ko ko ba mu egg itam jëfee ko ko doy na sëkk xam-xam bu koy jëriñ ci àddina waaye doy na sëkk itam bu koy jëriñ ci àllaaxira ndax léeg-léeg sax nga gis ñaar ñu toog kenn ki wax lu mu warul wax wala mu def lu mu war a def da ngay dégg ku ne ko xanaa dangaa jàngul nax ju kon nag mbok yi ndeke nax ju dafay gindi waaye nax ju dafay tege ci yoonu siraatal mustaqim waaye nax ju dafay yar looloo tax sëriñ Tuubaa daal leen bindal mag ñooñee téere boobee di nax ju waaye leen mu leen bindalee nax ju dafa am bayit wu am solo wum ca def woo xam ne dafay wone am solo yar waaye dafay wone itam am solo mag ñooñu àndoon ak seexul xadim lañ sàkk woon ci moom waaye dafay wane it tontu gam leen tontu seexul xadim daane haza wa inni yow ma soow ijaaba tey de dama jóg ngir fas yéenee tontu ñan la fa yéene tontu mu ne baxdal muridina sawil inaaba na ci ay murid yoo xamante ne am na luñ ñu sàkku si woon ci man mu mel ne boo ko doon laaj ne ko waa murid yooyu lan lañ sàkku ci man mu ne xattala boo nas man xawaata adduba dañoo sàkku woon ci man ma bindal leen aw way woo xam ne dafay làmboo ab yar lan moo tax lu tax ñuy sàkku loolu mu ne li yata adda boo pour ñu yaru lu tax ñu bëgg a yaru wa zaaka wajaba wa yar dafa war ci ñoom kon loolu itam di lu am solo looloo tax sëñ bay jaxate moom itam wala fal ko bar mag mag ba ne sëñ bay jaxate daan ne ab yara gën lu dee lu dee fi yara ko gën gën koo rafet ab yar yemoowul ak dara ku ko am ku ko amit ñàkkoo dara ku ko amut amoo dara sëriñ bi yàll nañu ko may ab yara jar jox junni bi at di sëriñ ko sëriñ bu la ko may ku jàppoonub junni may layit te jàppalub yar may layit léegi nga gis junni barot boromub yor forko di sex ab yar la dee fi gëne nit ab yar la dee fi rawe nit ab yar la dee fi sutu nit ndeedu alal maari yax kon mbokk yar lu am solo la te ñun murit day macha allah bu ñu bëggee rek yaru jërul sax ñuy sori di wax diw nee na wala jëlee nañ ci diw nañ wax koo xam ne rek ñëpp danañ ko xam am nañ royukaay yu mat a royukaay ba ca jiitu mooy soxna Fat Dia mi nga xam ne mooy borom may yu bari ya macha allah ndax doy na ndam sëkk ñu ne doomi Serigne Touba nga waaye doy na ndam sëkk ñu ne yaay taawu Serigne Touba waaye doy na ndam sëkk ñu ne Serigne Touba la dalal baa ba nga eggal doy na sëkk ñu ne Serigne Touba la jàngal xam-xam waaye doy na ci mayu soxna Fatia ñu ne sëñ Touba moo la yoral boppam cib loxoom tarbiya la jàngal ko bam mu ne nër waaye moo moo jàngal ko ba mu ne ar waaye yar ko ba mu ne nër yar boobee seexul xadim defoon ci moom nag moo taxoon mu doy seexul xadim ba rakkam yi ku ci ñëwaat rek bu la seexul xadim awalee fam ko awal muy jàngal ko alxuraan jàngal ko xam-xam da koy yabalaat ci soxna faj ja ne ko demal mu jàngal la euh, liggéey te jàngal la ak taalube akub kon ñun buñ bëggee roy ku ñu roy ci yar rek mën na soxna fat ja yaakaar naa ne nam mënoon a yare duñ ca xaaj bay egg waaye xale yi itam buñ bëggee roy ku bëgg a yaru nan ngay mel delluwaatal jël soxna may kubra def ko muy sa royukaay ci ab yar macha allah moom it fa sëriñ Touba awale woon soxna Fat Dia la ko awale woon muy ko mokkaloon alquran ku bind ay kaamil yu bari ku selloon ku mënoon a liggéey surtout liggéeyu liggéeyu jigéen waaye ku géeju woon ci xam-xam ak araab la ku taalifoon ay way yu bari la eh, moom soxna may Kubra moomee waaye dafa fa lépp nag jënde ko ak taalu bi ne magam jooje di sàkku ndigal ndax doy na sëkk ci loo xam ne tey jii amut ci sun jamono jii ñu gis ko ci soxna may Kubra benn bis benn photographe ñëw na ci moom di sàkku ci moom ab photo ne ko dama laa bëgg a photo mu ne ko bàyyil ma tàggu ci sama kilifa ba am ci ndigal daal di ñëw ci soxna faj ja tàggu ko soxna Fat ja ne ko jotagul dellul toog ba mu jot mu toog ba jëmmi jamono soxna Fat ja woo ko ne ko la nga doon sàkku jot na soxna may door a woo photographe ba mu photo ko mooy benn foto bii nga xam ne moom la yor sol ci robe bu ñuul bi te am karaw yu weexi muuroo sërub rabal bi benn photo boobu la ma sa am kon euh, képp koy xale it te bëgg ab yar mën ngaa ci soxna may mu na waaye bu ginnaaw loolu lépp jàllee nag ñu amaat royukaay boo xam ne macha allah jërta sori te dalal na sun xel bu baax a baax a baax a baax te ñu ngi koy ñaanal fanu gudd wu ànd ko wér mooy soxna maam Marème Mbacke bintu Cheikh Sohaybu bu Mbacke macha allah ñun ñi nga xam ne ñoo ngi ci ronam day saa buñ nee ci suñuy daara jee ba am fa ay jafe-jafe ba bëgg a fipp wala saytaane bëgg ñoo man ñu bëgg a gis suñ bopp rek suñ ñëwee buñ ko nuyoo suñ xel dafay dal suñ jortu rafet ñu jaajuwaat amaat encouragement bu bees fas tasaare tasaarewaat njàngum Serigne Touba ndax Serigne Touba kat amul lenn lu dul alquran Serigne Touba amul lenn lu dul sunna Serigne Touba amul lenn lu dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te képp koo xam ne yaa ngi dàq bëggub Serigne Touba te jaar ko ci alquran dañuy yaakaar ne sa jam boobee egg na kon daal yar moom munta ñàkk eh, mukk ci àddina yar ci société bi rawatina nag ci diine ji ndax kat yar moom kenn du ci mucc ci yar euh, benn say waajur yar la nangu woo say waajur yar la àddina yar la nanguwoo woo say euh, àddina yar la nga yeexe ko bàmmeel yar la wala xayaasu billah yàlla ñu ci yàlla musal kon soxna si ñu tënk foofu ba del siwaat incha allah jërëjëf soxna Ami Mbacke tey xam naa ne ay jàngalekat moom ku leen boole ci <laughs> da am problème sérieux problème. ndax moom macha allah li fi balle mel na ne bu xam-xam amutoon njariñ ci jigéen lii ñu fi wax yëpp ñoom duñ ko fi mën a wax. damaa xamul na ndax dernier tour de mën naa am. par rapport ak euh, temps beeg yooyu euh, moo ma ci xaw a yéem waaye ñu xam ne rek euh, jigéen moom moom mooy école bi nekk ci biir kër gi kon moom moo ki xamante ne. moom moo war a yar ki war a yar nag dafa war a yaru kon ñoo xam ne rek dañ jox soxna Manta mu jox dernier kii moom dafa mel li mu wax barewul mu wax dernier moom rek ci par rapport ak tàmbi fi mu toll taxawaay jigéen ci yoonu murit ndax gis nañu fi li fi génne lépp wax nañu jigéen ak jaamu yàlla kon jigéenu murit dafa war a xam ne jaamu yàlla wàcc ko kon ñi xam dañoo jàpp ni yàqkat yi jàpp ni yoonu murit eh, bokkul ak islaam dañu xam ne tey sëñ Tuubaa la muy indi mooy lislaam gu bees tàkk gu taqul dara gu yees laay wax sax da koo yeesal defar ko ba mu set wecc taqul dara kon benn bokkaale boo xam nekk na fi kon sëñ Tuubaa mooy ki doon diine te diine ja mu doon mooy islaam te mu la muy indil mooy diine boobu nga xamante ne mooy diine fa yàlla kon ñu xam ne lii ñu fi déggee ñu waxee ko fi ay murite ko fi wax kon ñun ay jullit lañu te kenn ku ne xam ne ndonali mu ngi ci loxo sëriñ bi kon ñoo xam dañu diingat ñu xam ne taalu jàngukaayu islam mu kër sëñ Tuubaa kon na ko ñëpp xam te xam ne moom mooy mooy universalité bi kenn fu waay mën a ne wax na ko fan la sa yoon wi yem mu ne fépp fu jullit nekk rek sama yoon waa fa. Mhm. kon moo yor ndono li kon la jox soxna Manta rek mu tàgg pour ñëpp rek ci dernier kàddu ci taxawaay jigéen kon jërëjëf soxna Ndeye Rouba jërëjëf mbooloo mi yëpp soxna Ndeye Rouba léegi maa ngi lay dey naan la tey vraiment tu es gâté maanaam tey xol yëpp sedd na. tey xol yëpp sedd na ndax xam-xam bu bëri ballee na fii tey moom ñun ñëpp suñ xol sedd na soxna maam Marème mi initié lii ak waa kër sëñ Soyo bu ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gën a ndokkeelaat ci seen bis bi nga xam ne ñu ngi koy teeru vraiment xol yëpp sedd na kon boog ñiy déglu ñëpp lii rek lañ ci bëggee woon mooy wanewaat ne jigéen moom taxawaayam dafa kawe taxawaayam dafa dafa yàgg a màgg li ñuy gis ci tele yi ñu naan lislaam moo def nii jigéen moo def naa jigéen bu buñ ko gëm lislaam moo jox jigéen li nga xamante ne moom la yeyoo l'islam moo jox jigéen li nga xamante ne moom rek moo koy jig kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp koo xam ne jël na ci parole soxna Ndeye Rouba li commencé soxna ma Jaxate ba ci soxna Nafisa sox yaa soxna Diop ba ci soxna Ami waxtaan wépp am solo waxtaan wépp moo am solo kon ñi ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm yàlla mu defal ñu ak dégg akuk jëfe yenn xale yi sama ginnaaw surtout su may wax ñun ay yarkat lañ waaye gone yi surtout li ngeen fi dégg lépp na ko fas yéene jëfe te ngeen ngeen seen yitte na kawe soxna yi ngeen fi dégg yi yépp ñu leen di cité li ko waral mooy am yitte ju kawe bañ nekkee ay gone lañu sàkku woon di ñaan fas yéene bokk ci nit ñi nga xamante ne dañ leen di tudd saa su ne kon na ngeen am yitte ju kawe ci njàng mi ngeen di jàng fas yéene jàng fas yéene mokkal te fas yéene jàng xam-xam bu baree baree bari te it lépp ngeen indiwaat ko ci yoonu Serigne Touba sànq yoroon microcentral bi dane yal na xam-xam bi bi muy ñaanal soxna Nafisa li mu waxoon moo ma neex xam-xam boobu yépp yal na ñëwaat ci yoonu Serigne Touba wi ñu koy jariñoo fii Touba waaye ñu koy jariñoo fépp ci àdduna soxna Mame kon lii moo nekkoon waxtaan wi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp soxna Ndeye Rouba yow bi am na solo macha allah macha allah wa axiru dahwaana an alhamdulilahi rabbil alamin bi teexeef ki ak fa ñu jëm dund ak weer ak fan moom lan lay ñaanal na ñëpp ne amin moom lan lay ñaanal na ñëpp ne amin alquran daa sedd suñu xol suñ ko dee jàng du leeral day suñu xol yi sellal jërëjëf yàlla borom kum xëy la yiw def la nga mokkal sant nañ sukran jasiira yaay bégal suñu xol yi sellal yaay bégal suñu xol yi sellal ñu koy seetaan ci tele bi wala ci rajo yi déglu ko ci ñu ne ñu ngi koy jox diplôme wala ñi ngi koy neexal ngir moo fi dàq fecc wala ñu ngi koy neexal ngir moo fi dàq way waaye kii moom dañ naa ko dana la jox diplôme dana la neexal ndax da bokk ci ñu fi gën a man alquran rawatina mu doon ndaw lu jigéen kon soxna Maam Mareem loolu mu def mooy ngërëmul yàlla ngërëmul yonent bi mooy ngërëmul tam Cheikh Souhaïbou Mbacké mi nga xam ku ko da nga ko kon so euh, oustaz soxna Diop andi léegi kado bi xam naa dañuy jiital rek daal di koy jox kado bi ba noppi muy neexal bi kon soxna Khady Mbacké soxna Maam Mareem moo la jox neexal bi ngir mu doon ab soññ ci yow ndax da ngaa jàng alquran ba mokkal ko lii nag ab diplôme la saa sa téyel nii ab diplôme la boo xam ne soxna Xadi soxna Maam Mari moo la ko jox ci turu daara ji yëpp almanahilu ya ndax nee na yow da ngaa jàng alxuraan farlu ci teg sa tànk fi nga ko war a teg niki sa maam yu tedd ya ba mokkal alxuraanu karim ñu bind la ci diplôme bi ne soxna Xadi Mbàkke am kàng la kon loolu def naa ne lu mat a sant yàlla la waaye aw waar la woo xam ne ñu ngi la cee soññi kon na yow daal danga nga doon dox ba mu yàgg ñu jox lay daal kuy dox ba yàgg ñu dab la jox lay jàng daal nag kenn taxawloowu la dañ laa gën a waaxuloo kon mi ngoog yoon waa ngoog diplôme baa ngi nii kon jëlal soxna Khady jaajëf wasalaamualeykum wa rahmatulah soxna bisimilah. waaw comme nii nga xamante ne noonu la ko soxna si defee du hasard ndax bu ñu seetloo rek. sallallahu alayhi wa sallam ak ma nga xamante ne moom la Serigne Touba jël léppam jox ko ko jébbal ko boppam bu ëllëgee yow mal xiyaamaati akbar ba nit ak jinne ak malaayika teew ñu jël siraat gàcc ko ci kaw jëxal na ma ba kenn ku nekk taxaw di xalaat sa bopp kenn ku nekk taxaw naan fu ma jëm mel num Seydina Muhammad mooy taxaw naan nafsi nafsi mooy taxaw naan nafsi salim alal ummati bu bu buñ ko joxee garaat ba nga xam ne mooy safahatul kubra bu wëlbatikoo maami soxna maam Maram mi rek lay woo borom jàkkay géej gi bu wëlbatikoo danaan ana baayu Serigne Souhaïbou bu Mbacké bu wëlbatikoo naan daan julli ca géej ga ana daan kennal ana daan tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naan raamal waraa nay la fadlin musa ina la wal fadlu inda rasulillahi xarraaru bu dee bu boobaa bu wëlbati ko daan ana borom daaray alquran yoo xamante ne ñoo daan sellal alquran di kaamilal alquran comme soxna maam Marème mii yal nañu ko yàlla fayal bi barakati Seydul Xadim Oustaz Soxna Diop li ngay def mënu ñàkk jërëjëf kaddug la kaddug dalal la goo xam ne dafa tukkee ci njabootuk Cheikh Mouhamadou jëm ci njabootu Cheikh Souhaïbou gi nga xamante ne si seen kër la ñu ñëw euh, Cheikh Mouhamadul Fadal ak Cheikh Serigne Mamour Mbacké ñooy ñi nga xam ne ñoom la suñu borom jiital fii ci kër Cheikh Mouhamadul Mourtada lii nag euh, mooy waajtaay woo xam ne moom la ñuy def ngir gàttandoo ko bis bi nga xam ne moom la ñuy defal Cheikh Souhaïbou Mbacké tey jii ñu yëg ko suñu wayjur ñu yëg ko suñu xarit ñu yëg ko suñu lépp muy Soxna Mariama ngir lan euh, jàpp gu mu ñu jàpp ak nu mu defee nu mu defee suñu diggante ak moom lu lu mu seqoon ak suñu way soxna bu sa jóg ñu ñuy sàkk ci képp koo xamante ne si ko fi teew la nga ñaanal ko fukki Ixlaas ak benn yëkkatiwaat suñu kàddu si dellusiwaat ci alquran li mu waxal boppam inna alladina yatluuna kitaaba allah wa aqaamu salaat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuuna tijaratan lan tabuur mu ne ñi nga xam ne dañuy jàng téereb yàlla bi di taxawal julli di dund li ci seen alal ci lu nëbb ak ci lu feeñ nee nañoo ñooñu ñu ngi yaakaar yaxan bu moo xamante ne si du lamb tey lii bokk na ci jëf ji nga xamante ne si mooy dundal alquran Cheikhul Khadim mi nga xam ne amuñu dara lu dul moom dafa wax ne innal kitaaba war rasul ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa jàpp def leen ñuy sama kilifa ba sunu borom yëkkati ma ba ma nekk ci place boo xamante ne si kenn amul benn kenn boo ma fa kon bu sunu borom dogalee euh, mu tànn lenn ci ay sëtam yoo xamante ne si dañuy dundal alxuraan ba nekk ci bis bu mel di ko waajale euh, màggalu te képp koo xamante ne si xam nga Cheikh Souhaïbou xam Cheikh Mouhamadul Mourtada mi nga xam ne moom ngeen nekk ci biirum atam ñaar yooyu rek lañ daan dund muy alxuraan kon su fekkente ne sunu borom na benn sëtam ay sëtam ngeen fekk si ko mu na am na ñoo xamante ne si ñu ngi fi nekk ay dogal ay xale nekk ci seeni loxo. Euh, daan danañu mën a wax xasida gi ñu yóbbandoo ko suñu eggee kenn ku ci nekk fas ko yéenee sax sa sa sa dongo boo xamante ne si moom nga jàngal ndax Seexul Xadim nee na képp koo xamante ne si da koy jàng donte nekk nga mag sax suñu borom dana la wërsëgale alquran balaa ngay génn àdduna alif gi la jëf la jël ne asaluka allahuma an tuyassira ifsal kitaabi li bi jaahi man sara laam gi mu ne li هفسه يسر مع التعفيز في أبد يا من له ملفوس غرآنك حلم ربيع قال ñoom la jóge ñu ngi ñaan nag ci képp koo xamante ne si ko fi teew la sunu borom defal la ngërëmul àdduna ak àllaaxira njëggaluk àdduna ak àllaaxira te ñoo xiir ci alxuraan ndax euh, alxuraan moom mooy lépp ni nga xam ne noonu la di dunde di xëy suba di lekk di xëy suba di naan alquran dañ ko war di dund di ci lekk di ci naan ndax euh, benn araf boo ci wax ñu bindal la ca juróom-ñaari araf kon loola euh, ak ni sëñ Touba waxee ci Masaalikul Jinaan euh, xale boo xamante ne si xamul dara nga woo ko ba mu ñëw nga teg àlluwa ci tànkam ne ko neel baa mun a baa neel siin mun a siin neel miim mun a miim mu wax ko ñu dajjati gétt boo xamante ne si ay way juróom amoon nañ ko ca sawara yóbbu ko aljanna kon loolu lu mat a sonne la xëy na mbooloo mi sonn nañu jataay bi xaw na yàgg euh, dañuy dollee santaat bu baax baax ci li nga xamante ne si moo fi xew gën a dollee dalal euh, waa kër Cheikh Souhaïbou Mbacké wax leen ne ci seen kër ngeen ñëw fii ku xam euh, Cheikh Mouhamadul Mourtada xam Cheikh Souhaïbou ñoom ñaar ñëpp ay jàngalekat la ñu woon ay yarakat la woon ay tërbiye waa kon la woon kon ñu ngi ñaan ci daraja Cheikhul Khadim sunu borom gën a wéyal seenu liggéey eh, ci barkeb Cheikhul Khadim jërëjëf mbokk yi tey di fi teew asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu eh, ñu ngi leen di nuyu ci turu soxna maam Marema mi nga xam ne moo nu dajale te bala may dugg ci wax ji ma dogal ngànt ci mbooleem manqué manqué yu ñu ci kàddu gi rek ñu jéggal ma ko te xam ne kàddu gi dañ ma ko jox waaye yeewuma ko waaye nag ndigal bu la dabee faw nga jëm ko soo soxna si mu wax ne mi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax tey sant mbokk yi ci jataay bii nga xam ne da cee amoon yéene lool ak pas-pas bëggoon it taxawal ko ngir seral xoli jullit ñi seral xoli taalibe yi liggéeyal sëriñ Serigne Touba te ngeen jàppale ko ci jàppale koo xam ne kawe na njortam cant googu itam mi ngi koy tàmbulee ci eh, magam di sëriñam di Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikhul Khadim yàlla na fi yàlla yàggal lool te wéral ko te defal ko tawfeex ba yéene ji mu am ci liggéeyal Serigne Touba mu am ci lu kawe njortam te njekki ko te ku ne xam na ne bépp jataay xam-xam bu ñu amal fu ñu ko mën a amale ci yoonu murid rek sëriñ Muntaxa lañ ko defal kon jataay bi ab jataayam la mu ngi ko ci sant bu baax di sant itam kilifaam di ab xalifaam di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke sooy bu ak mboolem ñu bokkal sëriñ sooy bu ñëpp ci góor ak ci jigéen rawat na soxna maam Jeng mi nga xam ne moo fi teew te mag ci njaboot suñu sooy bi ñi nga xam ne ñoo fi teew Euh, ak mboolem ay rakam yépp soxna si nee xolam sedd na guyyu sagal ngeen ko te defal ngeen ko loo xam ne seen itte la ak seenu yëg waaye sax jàpp ne dina leen lu tax ngeen defal ko taxawaay bu tedd bi ngeen ko defal di sant itam njabootu Cheikh Mouhamadou Mourtada te di ci jiital Serigne Mamor bi nga xam ne moo toog ab toogaayam waaye nag du fàtte kilifaam gu mag gu tedd gi nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Fadil nga xam ne dañuy wax ne peccum liir bu neexee ndey jàpp ca wagg ya nee na mi ngi sant Cheikh Mamadou Fadil bu baax eh, ci ay taxawaayam yu rafet ak jàppale gum koy jàppale ak gunge gum ko gunge ak itam xam ne lépp bépp taxawaay bu mu am rek bañ di ko ci naw eh, gannaaw yàlla ci ay taxawaayam la ndax bu ko newoon doo génn kër gi doo taxawal lii koy itam du ca sañ a teg baat ndax ndigal rek lay wéyee waaye fépp mu àgg rek ci eh, jàppaleem ci ay yéeneem ci ay ñaanam moo tax mu àgg fa kon mi ngi koy sant bu baax a baax a baax te di ko seedeel mbokk yi eh, noonu itam lay sant mbooleem njaboot sëñ Murtala gépp nee itam mu ngi sant mboolem comité organisation waajtaay màggal sëriñ sony bi ci njiital sëriñ aboo Say ak kilifa yi fi nekk di Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Moustapha ak Cheikh Abo ak mboolem ñi leen jàppale ci liggéey bi yépp nee na xolam sedd na guyyu ndax jataay bi dañ ko sagale waaye mboolem li ci ay war-war ak ci taxawaay lépp ñoom ñoo ko taxawe kon nag loolu war war na leen waaye mënoon na leen war ba noppi ngeen mànkil ko te mànkil leen ci dara nee na mi ngi leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla mu barkeel leen te guddal seen i fan te ngeen yàgg koo taxawe te ngeen am ci ngërëmal Serigne Touba am ci ngërëmal Cheikh Souhaïbou am ci ngërëmal mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo leen koy liggéeyloo ci barke si Amadou Khadim nee na itam mi ngi sant mboolem jàngalekat alxuraan yi nga xam ne moom biñ ko joxee bis bi dafa wax ne day ab jàngalekatu alxuraan la jàngalekatu alxuraan yi ñooy ay wéttalam ñooy ay xaritam ñooy ay soppeem ñoom day bëggoon na ñoom ñëpp njëkkoo te jiitu si fi xam ngeen ne Serigne Khady Diakhaté mi jiite rabita bi ci Touba teewoon na fi waaye sëñ Basiiru Mbàkke moom Cheikh Mahamadou Mourtada moo fi yebal otoom soxla ko moo tax mu yeewee ko sànq waaye ñu ngi fi nekk ak mboolem jàngalekat alxuraan yi nga xam ne ñu ngi gunge soxna si di ko wétali di ko wétali ko nee na mi ngi leen sant bu baax a baax te di leen gërëm tey ñaan suñu borom barkeel seenub liggéey te yeggale seen yéene te defal leen lu kawe seen njort ci li ngeen liggéey te làqal ñu ngërëmal euh, Sëriñ Tuubaa te bu ñu nee ngërëmal Sëriñ Tuubaa mooy ngërëmal suñu borom subhaanahu wa nee na itam mi ngi sant bokkam yu baax yu tedd yi nga xam ne ñoo doon def waxtaan wi tam tànnoon leen ngir am yaakaar ci ñoom waaye nee na day li nga xam ne feeñal nañ ko fi ci ay xam-xam ak i kàddu yu jot ak i eh, labiré wax dëgg yàlla tànnoon na leen yaakaaroon na ko ci waaye foogutoon ne dana àgg fii mu ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax ci eh, eh, soxna Ndey Rubba mi nga xam ne moo doon modéré jataay bi ak soxna maam Anta Mbàkke sunu xarit ak soxna Diop mii nga xam ne sunu rakk la seen taxawaay soxna Nafisatu Bousso sunu doom soxna eh, Ami Mbàkke Baxdaat kenn ku ci nekk rek li nga fi wax doyoon na sëkk mbooloo mi daje fi mu doy sëkk tem boo xam ne bu ñu ko déggee te jëfe ko loolu dana doy sëkk eh, ab yóbbal ak soxna Maram Jaxate li ñuy wax loola jege rek eh, sama xarit xaritu sama xarit Seex Muntaxa kon soxna si nee na xolam sedd na guyu mi ngi leen sant di leen gërëm te di leen xamal na it eh, mi ngi jéggalu di dogal ngant ci manki manki yi képp koo xam ne ñoo ngi fi jàngoon rek benn coono wala benn fitna rek loola du woon la ko gënal waaye bu sañoon ku ci nekk sa xol day sedd guyyu sa sam xel dal liñ fi jële it nga taar te mën ko jariñoo waaye mi ngi ñaan ci barkeb Cheikh Sohaib mi nga xam ne mooy way juróom di bundam Cheikh Amadou Khadim kenn ku ci nekk yàlla na seen borom barkeel sab liggéey eh, guddal sa fan Euh, fajal la say aajo te lépp loo xam ne it yaa ngi koy yotu mu jotale la ca te yàgg koo fekke te yàgg koo ànd nee na itam mu ngi leen di xamal ne jox na leen boppam kenn ku ci nekk lépp loo xam ne yaa ngi koy yëngu rek mi ngi ñaan mu di ko yëg insha allahu it fas na yéen a ànd ko ak yéen ndax loolu la suñu borom digle ñuy jàppalante ci aw yiw di ci dimbalante loolu euh, am na am na yéene lool jàpp ne sax mën na leen a fay seen taxawaay yi waaye nag am na ci yéene ba tax na képp koo xam ne am nga lépp loo yëngu loo xam ne jàpp nga ne mën na ca dara mu di ko yëg ngir moom itam mën a feeñal yéene ci yow kon xëy na xaw naa guddi guddi itam nee na mi ngi koy jégglu mboolem ñi fi teew ñépp rawat na kilifa yi ndax xam na ne bu sañoon ngeen jariñu lool bu sañoon liñ fi dégg lépp ngeen dégg ko waaye nag bu am bu sañoon itam benn coono wala benn fitna it du ca ànd kon li ci ànd ci ay fitna muy xaw guddee lépp mi ngay jégglu te di ci di leen ko jégul di ci dogal ngànt te xam ne rek xëy na yéene la ak eh, eh, nii jaraay bi tëddee xëy na am na loo xam ne mënta ñàkk waaye du woon li ko gënal mi ngi santaat daal di gërëm bu baax comité organisation eh, waajtaayu magal Seex Suhaybu di leen yóbbante ci kilifa yi di leen xam ne xolam sedd na guyu guyu guyu ndax moom jàpp na ne bépp jotaay bu ñu mas a amal ci waajtaayu magal gi rek jàpp na ne jotaayam bii kawe na ko te loolu seen i taxawaay la ak seen i yéene ci moom waaye moom itam ñun jàngalekat alxuraan yi rawat na rawatul madaari xuraan fi seen xaal ñu ngi sant soxna ma Mareem bu baax a baax a baax a baax ci ay taxawaayam yu rafet ci ak góorgóorloom ci eh, yitte ji nga xam ne def na ko ci daara ji ci guddeem ak ci bëccëgam yépp mooy xale yi nañ jàng nañ yaru nañ am xam-xam te it eh, yëmalewu ko ci daara yi boppam waaye mboolem ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci dëkk bi ci ay jigéen di jàngale da leen uuf eh, di leen di leen jàppale ci am xelam ak kàttanam ak dooleem ci kenn ku ne ngir rek bëgg ñoom ñëpp ñu maase am ndam maase am eh, ngërëmal yàlla am ngërëmal yonent sallallahu alayhi wasallam am ngërëmal Sëriñ Tuubaa kon loolu itam soxna si ñu ngi la ci sant bu baax ci turu jàngale alxuraan yi di la ci gërëm di la ñaanal yàlla mu guddal sa fan te may la ak wér te barkeel sa liggéey ba fa nga yéene àggale liggéey bi nga am ci ndam yoo xam ne dana kawe lool ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéglu ci kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu